mar marhaban kaddu yu hôtel yi daal di yëkkati jëmale ko nag ci joriñ bu ñu dënk wàllum tourisme ak mbirum astu soxna ñoo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi njiital syndicat patronal de l'industrie touristique et hôtelier du Sénégal ni kiy démb ci ab jano ak taskatu xibaar yi daal dinay sàkku ci joriñ bu ñu dënk wàllum ak tamit wàllum ak dikk ci jaww ji Alioune Sarr jëfe bi mu nar a jëfe ay tegtal yu ko njiitu réew daal di jox jëmale ko nag ci gën a suqali seen boobu le secteur Walf Fadjri quotidien nañu moom Alioune Sarr ginnaaw bu mu lànkee jëfe ay tegtal yu bàyyi ko ci président Macky Sall hôtelier yi daat nañu dal ci kawam bu baax a baax mer be futtu la ñu def ci ministre Alioune Sarr bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi li waral lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci hôtelier yi nee nañu seen bile ministre dafa yéex lool ndaxte nag jàpp ko ñaari attaque léegi mun munta fexe ba doxal ay tegtal yu tukkee ci président Macky Sall ngir suqalaat seen boobule secteur ginnaaw buñ ci jànkoonte ki jafe-jafe yu tar ci covid 19 gi patron réceptif yi daal nañu naqarlu itam doxalinu Alioune ñu jàpp ci ay naxe mbaay dong lay dox dem nañ sax ba di koy joxoñ baaraamal ci ba misaal ci Pointe des Sarènes bi mu wax ni seen boobu lay secteur daar na ci bénéficié wu lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards yi francs CFA loole nag daar nañ koy weddi ba mu set wicc bu ñu sukkandikoo ci Walfadjri quotidien Vox Populi itam bu ñu ak tamit jëmmaluk lii di mémorandum bi président Macky Sall tax na nag racine si daal dal ci kaw ministre Alioune Sarr ndaxte daal xamle bu sukkandikoo ci yéen kaay bi ni muy doxee jamono jile tembe daa mel ni amuñu ab ministre bu sàkku ci ministre Alioune Sarr ngir mu indi jubbanti ci doxalinam laas yéeni kay itam dëggal xibaar bi ne ñu patronat tourisme bi ni ki démb daal nañu yekk lu mel ni xeme Alioune Sarr ci jojulee jamono yeneen yéeni kay ñoom mbirum astu soxna mi ñàkk bakkanam ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ginnaaw bu mu doon mucc la ñu xëyee ñeent ci ay sage femme yuy liggéey ci boobule bërëbu fajukaay daal dinañ leen placé sous mandat de dépôt lu ñu leen di tuumal moo di bu càggante bi tax ab bakken rot tey jii ci àllarba gi lañ leen fas yéene àtte ci tribunal flagrant délit bu Louga ak tamit yeneen ñaari sage femme am yu ñu mayoon Abbas bu nekkandiku ci boobu la mbira yéeni kaay bés bi la jour nañu faatu ko astu soxna mile fale ci Louga pression ba nag ab jëggal moo ci fas yéene tukkee waral moo dina suñu naataango jàpp nañ ne lépp daal daje ngir ñu wàccee tension bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku fale ci Louga jëmale ko nag ci procès wu agent wu ba li koy firndeel moo dina njabootu ko Omar Yane ba ni kii démb daal dinay dajale waajuru ndem jàpp ne mën naa doon bu verdict itam buy tabbiloo réew mi ci daal naam sax agent wu santé ya daal dinañu joxante rendez-vous ni ki tey jëlee ci tribunal ba tribune yéen kaay bu ñu moytuwut yile sage femme yu ñu daal di teg loxo ci ab sursis la ñuy mujjee di maanaam daanu kaso bi ñu dul tëdd li ko waral bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi moo di ne ab médiation daal dina ciy tabbi ndaxte Serigne Cheikhou Tall bu njabootuk Omaren ci Louga daal dina fay amalub médiation bu tax njabootuk ndem si yàlla si di astu soxna moomee daal di jëggal sage femme ya te taxaw temb ngir retirer seeni plainte ndar kepp ànd ko yéen kaay Le Soleil mi ñëwaat ci yokkute njëg ya rawat na nag lépp lu jëm ci wàllum énergie ci àdduna wërngal këpp suñu naataango yi nañu ci atum ren ji njëgu énergie ba dina yokku ci téeméer yoo juróom fukk bu dee wàllum bi dina yokku itam ci téeméer boo jël ñeent fukk mu di njeexital mi tukkee ci ab guerre mi tabbi jamono ji la tembe ci diggante Ukraine ak Russie jàngeen jëf